kam feebar. wax ka. waxal sa bos. waaw feebar. kam feebar wax ka. waxal sa bos yow amul. amul. ana xaalis bali bu wala ñëw ci yow. rabbi danoo juum ah. xaalis bali. ah alhamdulilah rabbi wala ñëw ci yow. alhamdulilah. dégg xam nga la ngay la ngay salax. da ngay ay new new new. new waaw new marché. waaw waaw ay kay ah ay 7 kilos. 7 kilos new. waaw nga salax nga salax. new benn si boo xam ne ñeent fukki nit moo ko sol nga. nga so nga. ay jigéen nga sol ko yow ñeent fukki jigéen ñoo ko sol. nga jël ko nga sol ko aka aka ñeent fukki guddi. Eh. mais am na koo jàpp fan yii di ko dóor benn xale bu jigéen. dóor la waaw eh. ngay fëgg la fëgg la nee nga bàyyi ko. li benn xale bu jigéen boo jàpp di ko fëgg la nee nga bàyyi ko fëgg mooy la.